diggante Toubacouta ak ordinateur fële demi-finale lese moo fa nekk demi-finale lese boobee mooy dox ci diggante Ngor Ñaax ak Alaaji Baam Mag fële demi-finale lour moo fa nekk gànjamaane la Gandia Mané moo ne ndos ordinateur Toubacouta Gandia Mané moo ne ndos demi-finale lourd Toubacouta ordinateur demi-finale lourd ñaar gi daanay finalu lamba mu troisième place mën na ndoos am nga avertissement Ganja Mané am nga avertissement Toubacouta ordinateur ñoo nga ca Ngor Ñaax Alaaji Ba Maat ñoo nga jël na tànk Toubacouta ba waaye agul Ordinateur daa génn daa dugg génnaat Toubacouta jël na tànk daanu na daanu na Toubacouta daanu na Ordinateur daan na Toubacouta Ordinateur daan na Toubacouta eh, lamb bopp la lamb du doole kese lamb bopp la lamb lamb du doole kese lamb bopp la lamb du doole kese lamb bopp jàllal ma fële ca ngóor ñaax